mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd bi ak réew Rewmi FM daleen ak jàmm ci seen émission démb ak tey ni ñu ko baaxoo dimanche bu jot ci euh, waxtu bi tey nag ni ngeen ko déggee si bande annonce bi dañuy waxtaanee màggal Touba euh, bu 2005 daje woon ak euh, jamonoy choléra bu metti nga xam ne itam wàllante bi dafa gaawoon ñu war a ñëwaat nag ci mesures yi nga xam ne jëloon nañu ko méngale ko ak tey màggal 2020 bi ñuy amal talaata bi ñu dëkkmal te mu yemoo itam ak mbasu Covid. 2019 euh, ñu am nag mbégte dalal ci koo xam ni atum 2005 conseil technique la woon ci ministère de la santé mu jiite tey parti visa euh, Déthié Diouf euh, maa ngi lay nuyu am mbégte lool dalal ci Demb ak Tay ngir waxtaanee lii ma fi jonjo dalal jàmm. jërëjëf Adja Fatou ñu ngi lay nuyu di ziar di nuyu auditeur rajo bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp di nuyu citoyen yi ak mbokk taalibe yi di am mbégte wuy si ci invitation bi am yéene comme ni nga ko waxee rek indi ci nga xam ne xam nañ ko ci ci expérience loolu ba njëriñ mën cee génn bu baax incha allah. Euh, peut-être balaa ñuy gën a dugg ci waxtaan bi ñu bàyyi la euh, nga gën a présenté wu ci euh, auditeur ak auditrice yi nga xam ne peut-être xamuñu la bu baax. waaw jërëjëf Adja Fatou man maa ngi. Euh, tudd citoyen ci Diouf jiite ñu jiital ma ci parti bu ñuy wax visa les citoyens yàlla doogal aussi may euh, jiite ñu dox wàllu jàmm ci àdduna fii ci Sénégal ñu leen wax euh, les ambassadeurs de de paix du Sénégal jiite aussi organisation bi ñuy chaque jeunesse action citoyenne te xam na ne mooy organisation bi njëkk taxaw di def ay consultation gratuite promouvoir engagement citoyen jeunes yi donc it di leen fàttali ne man mi Covid 19 bi corona bi daaloon na ma euh, ma am lu ma ci jàngat ba ma génnee euh, taxawal mouvement bi ñu wax euh, bannissons la stigmatisation et reconnaissons le mérite donc ñu def ci ay taxawaay yu am solo xam naa ne ci waxtaan bi boo ci dikkee. dinañ ci gën di leen ci gën a ñëw ci kanam tuuti alors ñu tàmbali ak Demba Demba mhm. mooy euh, atum 2005 bi nga xamee ni yaa ngi mhm. nekkoon conseil technique ci euh, ministère de la santé mu yemoo woon at boobu nag ak euh, choléra am ci mhm. Sénégal waaye ñu amal ci màggalu Touba ngeen jëloon ci nag ay matukaay yu mucc ayib ba xëy na la ñu doon tiit yëpp amul est-ce que nga ñëwaat ci contexte boobu ak xew-xew bi na mu demee woon ak taxawaay bi ngeen ci amoon bien sûr. donc ñu ngi sant yàlla di ñaan yàlla yeesal yërmande ci ministre Issa Mbaye Samb bi nga xam ne moo jiite woon ba pare wóoluma ci euh, di ñaan yàlla yàlla yokk leer euh, ci sëñ Saliou Mbacké euh, ndax it wax dëgg yàlla at moomu jaaxle amoon na ndax épidémie bu mel ni choléra lu yéeme la ndax choléra dafa gaaw a wàllaate waaye ministre Issa Mbaye ñun dañu bokkoon suñu kuréel googu ñuy wax JAC jeunesse action citoyenne mu nekkoon conseil technique bu FADA waaye nekk membre ci association bi ma jiite ko donc ñu am approche bu ñu gëm ndax moom nitu milieu associatif la maanaam ci ONCAV bi la bokkoon nekk pendant plus de vingt ans alors donc am lu mu gëmoon mooy approche communautaire te loolu la indi mooy touche bu mu indi ci ministère de la santé loolu moo waral nga gis ñu defoon ma conseil technique chargé des affaires extérieures maanaam lépp lu jëm ci wàllu askan wi dem nit ñi ak loolu mu dénk ma ko daanaka boo xoolee amul benn ministère bu am bu am loolu alors loolu nag mayoon ñi ñuy mën a dem di ñëw di waxtaan ak kilifa diine ndax it réew mi réew diine la gëm-gëm la parfois boo bëggee efficace da ngay euh, dem ci nit ñi waaye aussi di wax ak ñi ñuy wax ak ki ñu yaakaar ndax koo gis rek am na ci ku mu bootu léegi ci kamu bootu boo ameen moom ay relation yu sincère yu continue du nga jaaxle rek ñëw xaw wax ak moom tey a pare daal di dem loolu mooy li xaw a li xaw na am ci début ci début euh, corona alo donc ñun nag loolu ñu def ko daanaka këru diine yëpp ñu doon fa teew indil leen ñu ñëw leen ay poste de santé ñu ñëw leen ay centre de santé daaka métti na gonaas bi ci lañ leen watal loolu ak noonu vraiment ba mbir mi ñëwee euh, ñëpp ñu bëri jaaxle alors donc euh, ñu xam ne ne quand même liñ naan épidémie engagement communauté bi moo koy moo koy moo koy réglé ñun nag amoon nañ ci déjà des acquis yu solides donc nag ci noonu la ñu def ay mission dem di seeti kenn ku nekk nga xam ne ne lu mu bu dee ñaar nit top topp ceebit vraiment ñu dem seeti la waxtaan ak yow ba ba ñuy waaj màggal gi donc ñu jaaxle ñi naan non bon les techniciens purs et durs ne màggal bi bu amee ça catastrophique ak yu demee noonu donc euh, isaan leen yaa màggal moom xalaatuñu mu bañ a am donc nan la ñuy war a mën a def ba loolu ndax màggal bi moom mënul doon lu dul xewal alors ci noonu nag bañ ci defee émission ñu sant ma ma ñëw seet si bi waxtaan ak moom préparé terrain bi waxtaan ak ñu ko wër vraiment yeete leen ndax sëriñ bi temps bu gàtt ngay am moom waaye ñi nekk moom ci bu wéetee ak yooyu boo waxtaan ak ñoom ba ñu briefé leen ñooñu bu ñu wéetee moom dinañ ko gën a leeral noonu nag la ñu def ba keroog ba ñu jógee ba ñëw seet ñu joxe ñëw seeti ko wax ko présenté ko ne ko nag màggal gi xam nañ ne xéewal la xewal bu yaatoo yaatu yaatu chance bu rëy la ci ñun waaye li ñu tiit nag mooy lii tax xam nañ ne xëy na loraange sax du fi war a mën a jógee waaye dafa di rek dañu bëggoon vraiment daal nga yëkkati ci kàddu mën ci def ay jéego bu nga xamee ne ñëpp dinañ ci roy ndax it loo mën a wax communauté Mouride moom li ñuy wax ndigal fa la amee maanaam jëfee li kilifa gi wax donc ci la ñu waxtaan nag ak moom mu ne ah comme ku tawat da ngay dem seeti kër docteur kon nañu jëfee li waa kër docteur wax donc ci lañ ko ñaan ne ko daal daal li nga xam ne ñëpp képp ku ñëw ci lay barkeeloo xam naa ne bu mënoon a bu fi mënoon a joge donc euh, ñëpp teg ci bët ñu joxe ci ndigal wax dëgg yàlla mu ne mu joxe ci ndigal noonu nag vraiment noonu mbir mi demee noonu vraiment ñëpp gis exemple ah sëñ bi toj na ndaalam kon kenn ko ne ak sa mbalka ka toj bañ fa jógee. mënuñu nañu dem seet hmm? Sëriñ Saliou la woon. Sëriñ Saliou Mbacke Mbacke radiyallahu taala anhu donc wax dëgg yàlla am compréhensif. ñaanal ñu ba pare nañu nañu dem seeti euh, sëñ Sidi Maxtaar bañ demee seeti ko ne ko ah sëriñ bi day sa maama fi jëlee woon peste bi donc lii ci maam nag xam naa ne mi ngi ci li sa baay li ci baay mi ngi ci mi ngi ci sët te jaan bu mag ak bu ndaw bu la ci màtt rek il faut nga lugg donc waxtaan ak moom mu xaw a muñ waaw dañ ko vraiment waxtaanee ko waxtaan bu relax wax dëgg yàlla ñaax ko ci ne wan ko ne maanaam participer mais dañ la cee yaakaar. waaw vraiment daal dañ la cee yaakaar lool tax xam nañ ne loolu mën nga ko ah mu ñaan nag wax dëgg yàlla laaj butéel ñu jox ko mu def ci ndox mu def ci ñaan wax ñu lim ñuy wax waaw waaye nag comme liñ naan ñaan dañ koy gunge donc ñu gën a nag baral suñu jéego gën a dëgëral suñu taxawaay guddi bëccëg suba ak ngoon multiplier action yi engagé association yi engagé ñëpp ñëpp ñëpp ah, alhamdulilah ba magal gi génnee Euh, kenn ku ne développé na ne benn responsabilité individuelle ndax kenn ku ne jàpp na ne wax dëgg yàlla mbir mi ci man la war a saafara warul yàqoo ci man alors donc loolu moo taxoon ñu fare ca màggal ga amuñu ci lu dul benn kaawu choléra. ci màggal gi li muy rëy rëy benn kaawu ngeen ci amoon. benn kaawu choléra benn. macha allah te approche communautaire moo leen mayoon loolu. bu weesoo kilifa diine yi da ngeen demoon. sur le terrain. waaw xam nga da ngay am xam nga techniciens yi ministère dafay développer ay stratégie mais stratégie mënu ko développer mais du adapté wu ak réalité terrain bi. maintenant boo nekkee ci terrain parce que même budul ministère wala cest à lépp looy tënk kii xalaat tey fi muy xalaatee cest à tey ji moo tardeel comme réewu Afrique yi ndax ñi toog ci kaw dañuy xalaat mais bu ñëwee ci terrain bi trouvé benn réalité kon ñoom duñu ñu mën a am résultat bi nga xam ne xalaat bi rafetoon na donc ñun mosuñ ñoo jóg ci terrain bi. waaw ñu ngi woon ak personne vivant ak le VIH yi ñu ngi ak ñi am tuberculose ñu ngi woon ak waaye laago yi maanaam képp ku xam na ne rek maanaam tey jii yaa ci société bi maanaam mën nga ne gis nga ñu benn yoon wala ñaar yoon wala lu ko ëpp donc loolu nag boo takkook nit ñi maanaam ñoom ñooy gis sax problème daal di la koy yéegal donc ñun dañ daan xam dañuy xëy rek dem fenn parce que xamal nañ ne fii lii ak ay nii nii la nit ñi di doxalee nii nii daan toog ñu jël benn kalandoo bu ñaaw sol jiin mu sol maskam ñu ñëw parce que dañ naan fii gaa ñi daal amuñu joxuñu orma malade yi bu ñëwee di ko def lu bëri yoon ñu jàpp ci ñu bëri yoon nga ñëw ki war a ñëw garder garder wul ñu bàyyi fa médecin ba du fa nekk ñu ñëw taxaw woote nga ñëw ñu la xam nga yaa ngi nii def loolu li nga wax donc loolu du benn du ñaar ñett ndax da ngay nekk ci terrain xam nga wax benn affaire la mais tant que yaa ngi ci terrain bi di gunge sa wax buñ lay ñaanale tamit ñaan da koy gunge ak ay jëf mooy di góorgóorlu mais bu fekkee ne nee ngeen comme nit ñi naan no sëriñ bi ñaan na ak loolu ba pare kon ne def li ngay def mun loo am lu dul résultat. Mhm. nga xam ne voilà mooy doo am daal li nga bëgg. d'accord léegi yéen seen taxawaay boobu ngeen amoon atum 2005 boo ko méngaleeg taxawaay bi kilifa yi am tey ci Covid 19 mi euh, màggal gi di am ci jamonoom euh, lan ngay gis Déthié. waaw xam nga ñu ngi sant yàlla ci maintenant approche bi nga xam ne adopté nañ ko te moom mooy fi ñu waroon tàmbalee man ba yàlla defee ma feebar euh, le ay le le vingt deux le vingt et le vingt deux mais si koor gi donc le deux laa génn dama génn rek gis na nga xam ne moo fa am ndax gaañi façon bi ñu doon communiquer ndax xam nga am na communication boo xam ne ne maanaam lan ko ci jublu ñu naan tibb bu tàng maanaam borom reg la ci jublu. waaye mën na caa am loraange donc nañ doon communiqué doon tiitalaate pour nit ñi ti ndax boobu bëggoon nañ nit ñi toog ndax it gis ngeen ndogal yi njëkkoon a am gouvernement bi jël ko ndax ñoom techniciens yi ñoo naan président di lii lii président daal comme noonu la daal di def dogal alo donc nag approche boobu ñu njëkk a jël maanaam doon toog di xaar maladie waroon na njëkk engagé communauté bi responsabiliser leen waaye ñu daal di def ko daal genre ni ñu ko doon waxee mu doon feebaru gàcce. waaw loolu moo taxoon cholère euh, tuberculose euh, law fii looloo taxoon ay sida law fii waaye bañ demee ba nga xam ne ne gars yi ñeme nañu ba ñeme taxaw naan man mi am naa ko donc après ci lu bëri daal di daal di réglé law donc ñun liggéey boobu lañ jël def ko ndax tey jii am na euh, fukki junni fukki junni ñaar ak juróomi téeméer ak fanweer rek juróom-ñetti nit ñoo xam ne wér nañu mais ci ñooñu ñëpp. man rek la yàlla dogal moo génn daal ne lii du ma seetaan mu mu loolu ñu def ci taxaw daal di ne nañu xeex bodd nañu boddi boddi gi alors donc loolu bañ koy waxee tam ñu nuñ leen il faut ñu ne ministère ci benn journal ne il faut réévaluer votre stratégie de communication ndax contre coup communication moom moo indoon stigmatisation bi mhm. loolu itamit moo taxu nit ñi bu ñu feebaree wala bu ñu amee ay signes du ñu ñemee teel a dem wala du ñu dem mhm. dañuy dem ba mënatuñoo nooy loolu moo taxoon euh, ñi ci doon ñàkk seen bakkan bari waaye ba nit ñi commencé sentir kii bi a man toog na kilifa yu bare bare bare am kii wooma xam nga donc di seet ah waaw noonu nan la demee ak yooyu tax ñoom ñu kenn ku ne yaa ngi jàpp ne tey jii ah, feebar boobu waruma dal. Hmm. tey jii ñu ngi yegg information ne président États-Unis dal na ko ak jabaram. yëgoon nañu ne Boris Johnson. Hmm. le premier ministre britannique euh, daloon na ko ainsi de hmm. suite. kon du woon feebaru gàcce mais fii gis ngeen ñu ne nit sax da doon génn àdduna. ñu ne am Covid bi ñu dem gaañ ne duñ ko suur seen armeel mhm. kon nga xam ne ne le problème était profond. Mhm. waaye bañ ca waxee wax a wax a wax wax dëgg yàlla xëy na ak ñeneen ñoom lu déglu ñu ba réévaluer après changer stratégie. waaw bañ changer stratégie it taxul woon dem ci terrain bi mat ni mu mat matee ndax gaañ jotoon nañu def ay benn benn dem xam nga jaar fenn. Mhm. wax ak nit ki wax ju rafet nga wax ko lu rafet mu delloo lu rafet nga dem. nekk ca leneen moom mu dem nekk ca leneen. nga ngeen koy dama la cee yaakaar bu wér ba pare di ci topp. nit ki xam ne wax dëgg yàlla ki yaakaar na ma ca moom it bu defee la mu war a def mu sot donc mm-hmm. loolu nag dafa manqué woon mais léegi nii gis nañu ne wax dëgg yàlla ministre bi Abdoulaye Diouf saar mu ngi ci terrain bi bari na tànk jiite seeti na kilifa diine yi gis nañ fi première fois mu dem seeti sëñ Fallou soin bu euh, sëriñu Cheikh Mansour Diouf wax dëgg yàlla donc démarré foofu ensuite ñun am na ay mission yoo xam ne ne wax dëgg yàlla gis nañ ne lii waroon nañ ko cee dox ñu dox ko ci dem sensibiliser sensibiliser sensibiliser ba nit ñi jël conscience sëriñ si daal di def xam nga tey boo xoolee ni nga xamee ne moom la euh, xalif général de mourides yal na yàlla dëgëral taxawaayam euh, def maanaam joxe exemple njëkk ci joxe alalam. Mm-hmm. jékki-jékki njëkk takk masque xam nga tey foo dem ñu ne sëriñ bi moo takk masque. Mm-hmm. kenn ku ne sawar nga danga danañ takk masque ba masque moom moom dootul bëggati ko ko takk. xam ndax loolu la donc loolay li ñu naan la valeur de l'exemple. voilà maintenant quand la démarché est sincère da am résultat au début mën na xaw a loolu mais au fur et à mesure ngay avancer di convaincre par benn benn nit man ba ma taxawee ne damay xeex bodd gi sama jabar dafa ne docteur la dafa ne mukk du ci dal. Hmm. da ngay yàq sunu waaw waaw parce que waaw nit ñi nuñ koy xalaatee. sa doom yi bi nga bëggee génn wax ne Covid daf la dal. daf ma dal mais def ma ne mukk lu ci dal man ko non man man ko ñi ma gis ñu jooy am ku ne man xaru dee moom ma gën a delluwaat fi ma dëkk ndax hmm. lii ku ma ko waxoon ma ko gëm ah am ñu commencé waxtu muy situation loolu rek man ci biir hôpital bi principal di profito di vraiment jaajëfal euh, colonel Pape Samba Ba hmm. ak euh, docteur Diop mi adjoint euh, ci liggéey bu mucc ayib bi ñu def liggéey bi xam nga nit mën na bari xam-xam xam nga ñun dañuy jàng booy jàng école léeg-léeg ñu ne prof bi dafa aay mm-hmm. ñu ne prof bi xamul dara xam nga ñoom dafa jàng ba am diplôme boo tax muy jàngale mais parfois approche bi muy defee mooy tax parfois euh, euh, récepteurs yi duñu de duñu décoder mm-hmm. message bi donc loolu moo tax ñu naan diw dafa aay wala diw aayul donc nag doxalin dafa am solo waaw loolu nag la ñu gis ci principal donc aussi porte ko à l'échelle mm-hmm. ba ñëpp gën caa góorgóorlu tey jii wax dëgg yàlla personnel santé bi vraiment kenn mënu leen fay yàlla rek mën a fay mhm. yàlla na leen yàlla fay ndax li ñu sonn mhm. kenn mënu leen ko kenn mënu leen ko fay mhm. voilà mais au moins ñu xam na ne vraiment fekk nañu génne nañu stratégie fekk nañu ñu dogu waaye tamit euh, yow citoyen bi nga ni man dama am damay engagé sama responsabilité loolu moo tax tey jii nii ñu ngi nii euh, Touba donc di def euh, lancer opération naa lu jaar ci man gannaaw ba ñu màggal gi amee sëriñ bi sànni message mhm. ñu nit ñu di ci mottali sunu sunu waar. balaa ñu yegg si foofu campagne euh, xeex euh, stigmatisation bi naka nga ko doxalee euh, est-ce que tey tamit jàpp nga ne réussite la. selon fi nga jaar ak situation bi fa nekk jamono yi. waaw parce que ñun dañu génn rek. tàmbali dem ci presse dem ci média yi. ndax it foofu la ñëpp doon déglu. donc ñu commencé di waxtaan ak ñoom ñu laaj na question bu ne. ñun amuñu coon benn gêne bu ñu ñëwee seeti seet seen collègue yi ah, dama leen ne man aw ma sujet tabu lépp lu ngeen waral laaj laaj leen ko lépp loo xam ne buñ ci tontoo mu indi euh, loolu même bu dee benn nit rek lay leeral ci boppam jar na ko. donc man dama newoon sama soxna man ko même bu dee benn nit laay sauvé hmm. benn nit boobu rek jar ko ndax rek naan ci lislaam boo sauvé benn jullit sauvé nga jullit yëpp hmm. boo reyee benn jullit rey nga rey nga jullit yëpp hmm. donc man ci état d'esprit boobu laa demee donc bind nañu wax nañu bind naa njëkk naa fi njëkk bind benn contribution daal di ne pourquoi notre manque de sérénité face au Covid 19 des virgule une honte bañ demee ba le vingt trois vingt cinq mars ma bindaa beneen contribution ne discipline aide nous à vaincre le Covid 19 ndax boobu maanaam euh, ak euh, ak yar dafa xawoon euh, a manqué gaañi. Mm-hmm. dañ noonu rek waaye affaire Macky Sall la moo fi def stratégie pour troisième mandat ñi di wax leneen ñi gëmuñu ko ñu naan amuñu ko. Mm-hmm. ñu naan ñi ko amee tamit jàpp nañ ne ku ko am dégg nga. waaw man mi sama wàllu bopp. Mm. Euh, ba ma génne dund naa ko ñaari yoon bon ëpp na ko sax waaye ñaari mooy génn suma waa kër fekk ñu quarantaine leen hmm. donc mais euh, ma ñëw nit ko nga xam ne yaakaar naa ne tey bu ma doon dee hmm. ñoom ñooñu ñooy ñi nga xam si laa mën a yaakaar hmm. mais dama woote pour ñu jëndal ma ay ndugg ak yooyu mais ba ñu ñëwee ci buntu cité ba lañ ko teg daal di daw dem ah waaw daw dem ma ñëw daal di toog toog toog xaar ba sonn gisuma leen ma woote ba ma Euh, ñun man non pourtant eh kii indi nañ ko man ko maye nan nga ko indee teegu moom mu ne noonu dañu ñëw rek dañ na kii dama yónnoon xale yi pour ñu dem hôpital jërëma man ko mais tey la samedi xam nga tey la dimanche tey kenn du ci jël rendez-vous mu daal di ne noonu xam nga xam nga ma daal di ñëw ci gardien nañ ne yéen ndax ngeen téye ñii ba ñu ñu ne non ñaari xale ñoo ñëw bañ ko wàccee benn xale bi naan ko gaawal balaa muy balaa muy ñëw <laughs> kon xam nga léegi kooku ka leen yabal yow lañ doon moom moo am nu mu waxee mhm. bu leen gisee ak moom mhm. yaay ngi dégg ñoo ñit benn yoon kenn ci ñëw jógul ñëw satisement te boobu wér nga ba génn yaa ngi dégg nga jóg am ñu nga xam ne dañ dem ba nga nekkee fële ñu ngi doon def souci ci yow nga pare daal di ne xaar ma dem seetaleen seetaleen pour dalal seen xel mhm. ñun la noo bàyyil ba bàyyil ba gën a wér hmm. xam nga bàyyil ba gën a meer yow mi hôpital ne la wér nga génn nga mm-hmm. ah? ñun la bàyyil ba gën a mm-hmm. xam nga yooyu donc xeetu stigmatisation yu ñaaw la ak yeneen mm-hmm. mais dama ci joxe rek ñaari ñaar ñaari exemple yooyu donc pour dire que maintenant affaire boobu nag jàmm ma blessé ma dans ma chair mais sama fierté fi mu njëkk a nekk mooy le discours du président de la République à la date du 29 juin donc il a réservé benn paragraphe ci stigmatisation ma ne kon man sama combat ah président dégg na ko ndax bu demee ba jël mm-hmm. def adresse donc jël paragraphe réservé ko ci combat bi kon man alhamdulilah je peux mourir heureux mm. man mën naa dee kontaan ndax au moins sama xeex teg ndax ña gis nga nit mm. boo nee noonu ah lii de nii la mel rek amul problème na ñëpp nii la ñuy def mm-hmm. non man toujours bu ma ñëwee damay porter li ñu naan combat bu ma ñëwee gis lu nga xam ne jaaduwul donc loolu jaadu bu ma gisee dama naan noonu lii moom man dama ko seetaan mm. du moom lu ma ci mën dinaa ko ci def donc yàlla may ma toujours nag muy université tey jóge naa fa ëpp na ñaar fukki at waaye ba tey sama tur a fa des bu problème amee man la ñuy woow parce que man toujours damay fekk lu nga xam ne du yoon gars yi naan no ah nii la demee amul solo nañ ko bàyyi noonu yàlla baax na yàlla tegul kenn lu la lor nit moo lay teg lu la lor nga xam ne ne lii jaaduwul mhm. donc yow it nga daal di taxaw pour dindi teggi loraange boobu mhm. donc ñun nag fu ko fekk rek danañ ci def suñu kéemtalaay kàttan te souvent yàlla daf ñu ci daf ñu ciy defal sutura ba ñu am ci ndam. Mhm. alors tey yaa ngi Touba jamono ji may wax ak yow. Euh, di mhm. lancer euh, opération Corona du fi jaar. Euh, mhm. opération boobu du jaar si man du jaar si man voilà lan la wundu ak naka nga ko nar a doxalee. waaw xam nga bu fekkee ne maanaam dañoo agsi fi nga dégg ni ñu naan ah sëriñ bi ñaan na affaire baa ngi dañ affaire bi day jeex. yaa ngi déglu donc xam nga ça c'est le fruit d'une stratégie maanaam stratégie bu ñu teg la. ñu dem ba mu huilé. ba muy porté a résultats am. Mhm. daanaka tey am na hôpital yoo xam ne comme boo demee principal fañ daan denc ay réanimation daanaka léegi amatul benn malade. donc nettoyé nañ ko am na yenn hôpital yoo xam ne daanaka. Mhm. amatul boo xoole parce que réanimation. Mhm. déggatoo fa presque kenn. Ah, ndax it euh, voilà. bu baax a baax a baax a baax xam nga bu ñu bañ ne am na hôpital yoo xam ne amatul ñu cas grave yu nekk réanimation. ça donc jar na sant yàlla. Mhm. mais boo xoolee état d'esprit sénégalais moo gaaw a naagu. maanaam dara day topp comme ni bu ñu wàllu football dañuy dugal benn bit rek. jàpp ne gagné nañu. Mhm. waaw donc naagu googu nag mooy ñun suñu défaut principal. deuxièmement aussi dañuy jàpp ne toujours lu bon duma dal keneen lay dal. waaw loolu saa c' est c' est donc nag ba ñu xoolee ni ñun ba gaañu naan euh, euh, ba ñu génnee def li ñuy def ba xeex ba loolu am taxul ñu bàyyi fu ñu toll. Mhm. ñu ngi sensibiliser ñu ngi wut ay masque ñu ngi wut ay gel euh, fu ñu xam aussi xam ñu ci conseil en en santé alors ñu daal di taxaw tamit. gisaat ne ah wax dëgg yàlla mbir mi euh, war nañu comme le président ne il faut apprendre a vivre avec le virus ma ne non il faut pas apprendre on a l'obligation mm. parce que économie bi nërmeelu na te mënatul continuer nii ndool gi amoon na waaye fi mu toll nii yéeme na yéeme na boo dajee fukki nit di nga gis ni juróom-ñett ñoo xam ne ne dem la naan bàyyiwuma dara sama kër sama dara amatu fa mm. donc mënatuñoo kon ne na da ngay toog ci kër wala loolu liggéey amatul mm. alors donc ba économie bi reprendre. Mhm. parce que boo tegee ay stratégie bu mbir mi ñëwaatee comme genre li ñu naan deuxième vague bu ko sax cité non boobu ndax euh, euh, yàlla bu mu fi am mukk mukk mukk mhm. mais il faut que ñu accompagner la dynamique. Mhm. donc dynamique boobu nag bu sëriñ bi bañ ñëwee non màggal ñi naan màggal à la maison man maa taxaw ci site bu mag a mag a mag ne leen non màggal gi dafa war a am. ba pare expliquer. waaw donc ñu saaga nañ ma lu ne dégg naa ko ci waaye man li ma gëm rek la man lu ma gëmul du ma ko wax ndax li ma gëm bu ma ko waxee bu dee jotee dama ciy dee. waaw jamono ja nga koy wax foo tegoon ne màggal dafa war a am. waaw non parce que benn xam nga économie bi normelu na. Mm-hmm. yaa ngi déglu liggéey de plus en plus ñi doon sax góorgóorlu di joxe salaire ndax ba eta joxe benn soutien bi mënatul mënul dëkk ci ko def mm-hmm. donc daanaka li fi am moom foo ko takk rek yée mën a yéen journalistes yéen ñu gën a xam mm-hmm. donc li am mooy na ñu jéem a tàmbaliwaat liggéey ndax feebar faaw dañuy dund ak moom yaa ngi déglu corona bi dafa dafa am buzz rek mais yu ko feebar yu ko gën a dangereux yu ko gën a grave fi ne hmm. mais bu fekkee ne dematuñu kenn bëggatu dem dafay doy waar justement ñu ubbi tuuti parenthèse euh, corona bi ak euh, choléra ba 2005 boo méngalee hmm. euh, niveau de contagion bi ban moo ci gën a gaaw non choléra moo gën a gaaw a wàll fukki yoon ah oui corona moo gën a gaaw a rey d'accord choléra ngelaw li sax da koy yóbbu choléra choléra ngelaw li comme ngelaw li nii nit daal di wàccu fële wala nit dem àll fële yaa ngi déglu ngelaw daal di jóg. Mm. Ah. donc voilà mën na la mën na la mën xam nga fii dañ naan no bu ngeen jegantee wala bu ngeen laalantee. yaa mais choléra euh, ngelaw sax da koy euh, da koy yóbbu ce qui n'est pas tout à bon budul. Mm. comme ni euh, ci Covid bi distance bu jege ngay wax. Mm-hmm. sa tuuflit yi di wala yu demee noonu. Mm. voilà budul loolu daanaka en fait la chaîne de transmission dafay coupé wu mais fële. ngelaw li facteur ngelaw bi. Mm. daf cee daf cee daf ce cee bokk daal voilà. bon mais bref bëgguma dugg trop ci dara mais. Ah. choléra moo gën a gaaw wàllaate fuuf. d'accord bii moo gën a gaaw alors donc léegi nag ñun ñu daal di ne écoutez il faut que ñu défendre lii ndax mënut a ñàkk ndax màggal. Mm-hmm. xéewal la ci lépp rek. Mm-hmm. sant yàlla te sant yàlla yàlla boo ko mu dolli la. kom mm-hmm. comme Serigne Touba dafa ne santale leen ma. ah ñun ñëpp nañ ñoo santale hmm. maintenant ci santale gi nañ ci boole nag ak maytu hmm. waaw sëñ xalif euh, sëñ Muntaxa macha allah moom mi ci njëkk a def alalam def ci geste yi mu ci def def ci lim ci def ñu gis ak yeneen këru diine kenn ku ne yaa ngi def li nga mën ci wàllu ñaan ndax réew ñaan lañ waaye bu ñu ne croiser les bras du sotti donc ba lii amee mu dogal ko ndax mënoon na tamit jël beneen décision hmm. bu boobaa tamit voilà ñun duñ ci am gàcce mais dañu xam ne wax nañ suñu xalaat mais dëppoowul ak li sëñ bi gis ci baatin donc loolu nañ ñu gisaat ci suñu responsabilité ne ah, comme ñun nii la ñu waxee te fekk loolu moo dëppook li sëriñ bi dogal mhm. kon ñu it nañ ci assumer totalement suñu responsabilité ndax fii dafa am la responsabilité collective mhm. mais responsabilité collective bi ko jiitu mooy la responsabilité individuelle ndax kenn ku ne sa biir kër boo nee du jaar ci man ah ñu mhm. génn ci biti doy parce que ci biir kër yi lañ koy tàmbalee bu ñu génnee ci biti kenn ku ne dañ du jaar ci manu biir kër gi mu génn ci biti kon jaar ci kenn donc rek loolu ci la wut ni ay masque wut ay gel donc euh, wut ay kii defar ay support t-shirt defal ay loolu donc vraiment saisir ay nit ñi nga xam ne yàgg nañ leen woo depuis Diourbel toujours daan nañ sensibiliser ndax dañu bokk ay groupe WhatsApp mm. donc yore ay page ak loolu vraiment nit ñi di suivre ku ci jaaxle woo la nga daal di informer donc ñoom ñëpp nag bañ leen alerter ñoom ñëpp kenn ku ne dina ci def taxawaay donc wax dëgg yàlla nag ci la ñu ñëw vraiment jaar euh, Diourbel mhm. donc ndax mënoon nañoo ñëw rek dem jubali ci kilifa yi mais comme ñun résultat lu ñu bëgg mhm. dañu dem directement ci tari dem ni ngi woon quartier Thierno Kandji bu bu Diourbel mhm. donc après donc te jii ñu ni nii quartier Gawane bañ fi jógee dañ dem quartier Guédé ndax kenn ko ne da ngay téye tuuti rek boo amee yow loo téye keneen téye feneen keneen téye feneen mu ndax nguur gi sax mënul matale lépp kon nañu téye loolu moo tax ma dëgg yàlla ñi ngi ci et le message vraiment mi ngi jàll. Mm. bu ma defee statut parce que li may am ci vue mënuma la wax nu mu toll. Mm. kenn ku ne danaan euh, corona du jaar ci man. te ku ne bu ko waxee gëm ko nag. Mm-hmm. parce que moo tax ma ne leen ñaan dañ koy gunge ak dañ koy taxaw ak ay jëf. stratégie dañ koy stratégie moo relevé ci ministère de la santé du mm-hmm. gouvernement. Mm-hmm. donc loolu ay jëf a koy gunge. ñaanu sëriñ beeg ñaanu sëriñ si. tamit lu leen di gunge ay jëf. Mhm. ndax buñ la ñaanalee lu baax nga dem di def lu bon. Mhm. mënoo am lu dul lu bon. Mhm. d'accord alors Déthié Diouf euh, la ñuy dalal euh, borom parti Visa moo ko jiite. mais li ñuy waxtaanee mooy euh, jamonoy 2005 ci màggal ga jamonoy choléra ga nañu ko dundee woon ak xew-xew bu mag bi tey mu yemook mbas mi mu nekk ca Touba lancé fa opération corona du jaar ci man. Déthié man préoccupation ma am mooy xëy na foofu ca Touba mën ngeen sensibiliser. xëy na ba lépp jaar yoon nit ñi moytu ak yooyu mais bu ñuy ñibbi tamit beneen équation la ndax ñooy bokk oto yi ak yooyu est-ce que yéen a ngi euh, insister tamit ci loolu dellu gi euh, matukaay yi nga xam ne war na ànd ak moom ndax euh, bu ñu fàttalee transport interurbain mi ak fii nii sax jëloon nañ ci ay restrictions yoo xam ne bañoon wàllante gi jaar foofu moo tax. waaw xam nga loo gis stratégie la te stratégie ay séquence la. Hmm. donc séquence bi mooy séquence su ñëw bi. te gis wax dëgg yàlla. démb fu ñu dem ah nit ñi dañuy lal basang ah, eh, ñi kii nii vraiment jaañaa ngi jéem a respecté li gën gën a jafe mm. mooy respecté la distanciation loolu moom mooy lii gën a jafe ndax saabu raxasu ba amul saabu mën ngaa am gel mm. ah masque yi moom ala kullaalin mënut a ñàkk mm-hmm. bon tey jii nii euh, wax dëgg yàlla gis nañu initiative yi ñun lu ñu yoree donte ne bëriwul même bu dee euh, jege na junni masque voilà bëriwul waaye dara la. Mhm. waaw donc euh, ñu loolu am nañu aussi ñi ngi amaat ay jàppale. voilà donc kenn ku ne fi muy tee mooy masque moom na ko ku nekk am. Mhm. gel nag ñëpp mën nañ ko bañ am. mais ñi ko mën a am am ko ñi ko mënut a amit mooy saabu bi moo gën a yomb amul fooy dem te du am saabu. Mhm. ak raxasu maintenant bu fekkee ne maanaam côté hydraulique góorgóorlu nañu wax dëgg yàlla ba ndox coupéwul ah yaakaar naa ne daal. Euh, jàmm mën euh, na ci yàlla mën nañ cee def maintenant. Euh, xam nga ñi ngi jëm ci màggal gi. Hmm. maintenant xam nga boo da ngay gérer ñëw bi. ah gérer directement donc jour màggal gi ndax étape bu nekk rek danga koy hmm. da nga koy gérer. Hmm. y a la stratégie d'ensemble. ñëw bi màggal gi après màggal gi. voilà mais comme ñi ngi toll ci phase bi nga xam ne ñi ngi ñëw. phase bi tu mets l'accent sur la sur la prévention. donc jour màggal gi da lay wóor na nag sëriñ bi dina délivrer message yu yu fort fort fort li mu délivrer gum rek ci affiche bi rek. yéeme na. waaw donc xam naa ne dina ci defaat lim ci war a def te xam nga moom bu waxee euh, ñi ko ay jëwrinam wax jëwrin yooyu seeni i wax ah, daara yi daal di loolu maanaam euh, wóor na la ne rek. waaw kenn ku ne yaay surveiller sa moroom moom la moom laa naan brigade citoyenne mhm. kenn ku ne yaay teg bët sa morom mhm. bañ lan li mhm. donc bu ko defee euh, dina loolu man dama lay jox kaa am na kilifa gu suma benn xarit kilifa la dañuy ànd mu ñandu sànni ma daal di gaare daal di dem jël mouchoir bi ne ko a ah, bu ñëpp defee nii dëkk bi du set. Mhm. xam ndax ñenn ko xëy na am amuloo corona mais ñenn bi xëy na am na lu ci ànd. Mhm. te boo ko kenn foree laal ko mu ànd ci loxo mun maa wax nga dëgg depuis boobu ma nga ca. Mhm. man ku ma àndal sama oto mbalit nga ciy fekk ndax loo lekk wala loo naan. fa nga koy bàyyi bu ñu wàccee ñu def maintenant kenn ku nekk rek doo naan ah dëkk ñëpp nii la ñuy def. non non non da naan lii baax. nañ ci fexe lool lii bon it il faut mu am ñu taxaw. Mhm. taxawaay boobu buñ ko saxalee dëggal ko taxawaay boobu euh, moom mooy mën indi résultat. Mhm. mais du luy xëy sotti ndax dafa am benn état d'esprit moom lañ naan. donc euh, man euh, maanaam benn jikko xam nga jikko lu ñu ji la. Mhm. xam nga voilà mais boo jiyee xam ne li nga ji baaxul da ngay dindi ji boobu. da koy fexe dindi fexe def leneen donc dañuy def lu ñuy wax changement paradigme. bu ñu changé paradigme donc mooy cat gi l'islam ak euh, religion yëpp loolu rek lañu ñu digal mhm. da leen set xoolal jàpp bi yaa ngi sarax ndiku sa bakkan mhm. yaa ngi raxas sa loxo yaa ngi maanaam fii affaire bi di jaar yëpp mhm. l'islam yow cinq fois dans la journée au moins di ko def mën nga ëpp mais cinq fois dans la journée boobu daanaka mbir mi mënu faa dugg ba toog fa bor laa mën a lor bu dee yaa ngi respecté euh, jàpp gi voilà dama ko jëlee exemple no rek mais religion yëpp cat la ñu woote waaw donc lii côté positif bi mooy delluwaat nañ sunu xel ne ñun dañoo war a bàyyi xel ci sunu set. Mhm. dañoo war a gën a set bu ñu gënee set rek mooy li am France xam nga fi boo ñëwee sax di raxas ñu naan ah kii dafa tubaabe non set du jullite njëkk a tubaabe. Mhm. donc mais ñooy jàppee noonu état d'esprit bi. faaw ñu def ci damel mhm. incha allah mhm. alors euh, yaa ngi wax euh, sànq euh, ne xalif bi def na ci lu am solo ci taxawaay mhm. est-ce que gis nga tey ne ña nekk ci Touba gannaaw yaa nga fa porté nañu recommandation yooyu est-ce que ñi ngi koy doxal ñi ngay gis ci mbedd mi ñi ngay gis yooyu uh-huh. donc tey ñi ngi tali bu mag bi vingt huit fa la ñuy dem ci garage yi donc am na ñu ñu identifié ñoo xam ne yàgg nañu amanteeg ñoom informé nañ leen donc tey ci axe boobu lañ njëkk a œuvré après door door door dem ci yeneen mais ñu ngi gis na ne kenn ku ne masques yi jiital na waaw démb ca Diourbel da nga gis ñeen ñoo xam ne nag seen masques yi sax dafay tilim nga sensibiliser nag leen may leen ne leen masques yi nag léegi da ngay am bi ambale ñaari masques yëpp da nga koy fóot euh, guddi gi boo xëy suba mu set nga utiliser bii boo utiliser bii ba digg bëccëg bi mën nga ko fóot après jëlaat beneen bi bu dee fi nga ne mënoo koo fóot nga dindi ko def ko ci mbuus takk ko parce que boo ko jëlee nooy ci nooy ji pare jël ko noonu nëf ko sa loxo wala def ko sa poos hmm. yaa ngi dugal doo jàngoro ba foofu kon da ngay jël mbuus wala foo ko mën a def nga def ko fi takk beneen masque bi bo ko defee yow boo takkaate deuxième masque bi daanaka booy àgg sa kër donc jël ko rek boo demee rek xooj ko ci omo wala fóot ko ci saabu donc yaa ngi sàmm sa la mais yow mën ngaa loolu am ñu ci dal mm-hmm. nga ñëw sa kër rek teg ko noonu sa kaw table mm-hmm. nga teg ko sa table sa doom daal di jël laal ko wala loolu wala bon wala yu demee noonu après mu wàll ko mm-hmm. bu boobaa yow yaa ko jëlee ci àll ba indi ko comme dafa am ay détails yu ndaw yu ñuy yooyu yëpp démb wax dëgg yàlla def nañ ci surtout yooyu sew yooyu parce que xam nga masque bi barrière la mais léegi li li jóge fee dal ci moom mi ngi ci kawam mais mënul dugg sa biir bakkan mënul dugg sa biir gémmiñ léegi yow boo ko gàddoo noonu ngëpp ko sa loxo mm-hmm. ndax masque bi sax même koy dindi yi nga xam ne moom nga lonk ci nopp bi nga war a jàpp mm-hmm. boo jàppee cat yi après nga dëpp masque bi yaa mm-hmm. mais boo ko téyee xëcc ko ni ak sa kii buddi ko noonu ngëpp ko mi ngi sa loxo yaa ngi nga teg ko sa kër wala teg ko fenn sa doom daal di ñëw jël donc yow yaa ko yow yaa yow donc gestes yu ndaw yooyu dafay ay détails yu ndaw yoo xam li naan le le diable est dans les détails détails yooyu nag ñu ngi ciy ñu ngi ciy ñu ngi ciy wax dëgg yàlla ñu ngi ci ñu ngi ci def daal suñu kéem lay kàttan mhm. ndax doo ne man maanaam doo ne kële ndax kenn ku ne da ngay assumer sa part de responsabilité mhm. maintenant li gën a am solo te mooy kuréel gi nga xam moom laa jiite diggante Sénégal ak Corée diggante xaritoo bi ñooñu seen secret mooy responsabilité individuelle très forte la ñu engagé mhm. ku ne daane non réew mi daa war a ci sama loxo ba pare ba ñu ba réew mi 53 nekkee ca guerre mhm. maanaam enseignants yi ñoom dañoo nekk au front benn maanaam amul benn élève bu perdre benn waxtu jàng bu doon fii la buñ ne benn bal kenn dootul demati hmm. voilà donc kenn ku ne dana noonu duma ko jaral duma ko def mais sa boo ñëlee nekkee di joxe seen deret mooy impôt du sang bi hmm. ñi ñi ngi joxe impôt du temps hmm. mooy ñoom dañ jël seen temps di jëlee xale yi ñuy ñëw kenn ku ne tu as l'obligation d'être là ñu jàngale looloo mooy seen secret ñu def fondement éducation bu am solo ci esprit de sacrifice finalement tey Corée mënoo wax ñaari réew te tuddloo ko ci ci exemple lu bëri bëri bëri kuy cité exemple discipline wala loolu rek mm. ñoom ngay cité waaw ñuy dugg ci wàllu politique ak ñëpp presque ñoom la ñuy cité te ñun comme bunt boobu gis nañ ko bu yàgg ba taxaw ci moo tax ñuy woote li ñu naan révolution des mentalités maanaam ñu indi dammel mm. ndax réew mi du changement la soxla dammel la soxla mm. waaw bu ñu defee dammel rek danañu am li ñu soxla dëgg. dammel loo ci dégg. waaw dammel xam nga dafa am révolution de mentalités damel xam nga comme bu njëkk ba bu ñu nee dammel du Kayoor. Hmm. xam nga dafa am ñu daan falu. Ah, mais kii ba mu ñëwee ñoom dañu ñëw dammal li fi nekkoon. bañ ko dammee après ci la am léegi moo tax ñu naan dammel du Kayoor dammel teeñ ak yu demee noonu. Mm. dammel mooy comme bant nga damm xam nga bant bii nga yore baaxul. Mm-hmm. mais boo ko dammee dootoo ko mën a utiliser. Mm-hmm. léegi boo ko mënul utiliser léegi il faut il faut nga leen loo utiliser boo dammee li baaxul da ngay dem wuti lu baax. Mm. pour def ko fi donc ci wàllu xalaat xalaat bi dañoo war a def ci sunu esprit. Mm-hmm. non mooy li bon. faatu la du man ah voilà faatu moo war a def lii faatu moo war a def lii toujours non dañuy xaar nguur dañuy xaar sama papa dañuy xaar sama yaay dañuy xaar président xam nga dañuy xaar maanaam association ñu ne dañuy xaar ba président daal di ñëw mhm. ndax lu ngeen seq kenn ku ne daf ci am fu ci war a taxawee mhm. xam nga taxaw ci kaw am na lu mu war a taxawee mooy niveau stratégique bi di concevoir di di envoyé keneen ki taxawee fii keneen taxawee ku ne am na foo a taxaw boo fa taxawee da ngay matal sa taxawaay ndax dañuy yaakaar ne yow mat nga pour mën a taxaw foofu mhm. mais boo nee noo xaaral ma xaar ah, président lu mu wax ñu ne lii lan la kilifa gi wax ñu ne lii la wax kilifa gi waxul dara ah kon nañu toog xaar kon foofu engagé woo sa responsabilité mhm. yaa ngi di donc loolu moom la ñuy dégg ñun ci Damel mhm. ci moom la ñuy wax révolution des mentalités wax nag leneen li gën a am solo mooy impôt du temps waaw ndax dafa am impôt financier mooy li ngay fay li may fay li ñu fay taxes yi impôt du sang mooy li militaire bi nest ne man bu sama réew soxlaa sama deret pare naa pour jox ko ko ngir siggil ko ngir taxaw ko mais impôt du temps mooy tey jii sunu xaalis suñu temps sunu essence sunu lépp lañ jël pour du def ak beaucoup de risques. Hmm. voilà mënoon nañ ne ak ah, nañ def ne ñëpp nañ war sunu masque daal di loolu mais yow boo nee fegu nga ah te ñeneen ñi fegu ñu du sotti. ndax xoolal corona mi ngi jóge Chine. Hmm. wër na daj na àdduna yëpp. yaa dégg mais bu fekkoon ne maanaam moo euh, en fait euh, maanaam foofu rek la yem. ok mais kenn ku ne mais mënuñoo bañ a communiquer dañu am interdépendance indépendance amatul interdépendance moo am léegi nag interdépendance nag mooy li nga yéene sa bopp ci lu baax da nga koy yéene keneen ki mhm. keneen ki yéene la lu baax li mu am kenn ku ne am nga valeur ajoutée am nga loo tane sa morom kenn ku ne indi ndax tey euh, euh, Covid bi mbas mi mais ñëpp yaakaaroon ne Afrique day dafay dafay décimé dafay mhm. jeex mhm. Hmm? ndax amuñu doole ci wàllu hôpital amuñu doole ci wàllu kii mais ñoom ñu am doole ba tey jii ni président États-Unis wala président euh, kii nga xam ne ñoom ñooy ñaar ñi fi ëpp doole mm-hmm. mais ñoom ñoom ñoo ci loru kon yàlla dafa am lu mu wane moom rek mm-hmm. kay doole mm-hmm. moom rek a mën maintenant ñu nit nañu li ñu lu la waaye bu la nit ne maa la gën a njool na ko maa la gën a gàtt maa la gën a xees ngeen ko maa la gën a ñuul li la yàlla jox yow loolooy sa loolo loolooy sa moome loolooy sa loolooy sa loolooy sa alal mais boo xeebee li nga yore bëgg a daw dàqilale du sotti ña fa dee ñëpp di ko dee maanaam ñun li ñuy door a agsi nii mhm. daanaka ëpp na li France wala ay Espagne wala Italie daan doo daan deelee par bis mhm. li États-Unis deelee par bis ñun ñi ba fii déjà rek benn bakkan ëpp na mhm. euh, mais ñi ngi àgg ci trois cent onze euh, bakkan yu daanu. Mhm. mais loolu bari na lool. Mhm. bari na lool bari na. acteur politique nga aussi yow yaa jiite parti visa ñu ñëw mhm. euh, ci relance économique bi nga xam ne président de la république tàmbali na ko euh, màggal gi ñu bëri sax jàpp ne mooy première étape relance boobu noonu ban gis-gis nga am ci plan bi ñu annoncé en tant que responsable politique waaw donc dañuy rafetlu initiative ak acte yi nga xam ne gis nañu président mi ngi koy jëm a ndax it euh, xam nga réew dafay toll foo xam ne ne dafay soxla benn euh, élan patriotique euh, bu nga xam ne ñëpp dañ ciy ànd ndax moom xalaat rek gis-gis la wax ak ñun ñu ne ko ah wóolu nañ la jiite ñu donc gis-gis nag ak jëf mën naa wute ndax mën nga am gis-gis bu rafet mais ci wàllu jëf bi nga tànn nit nit ka du ko jëfee wala du ko doxalee yow ni nga ko bëggee woon moo tax nga gis ñu fal nit di ko wàccee wala nit président ne gannaaw yàlla moo fi ëpp doole lu mu wax rek war na koo mën mu wax dara ne nit ñi dinaa leen defal tali wala dinaa leen defal forage hmm. après defu ko parce que ka ñu dénk wàllu forage ba mu dem ci ministre ba ba dem ci directeur am mag yooyu ñooñ ñoo ko dul topp te nit ki bu waxee lii te ma nga cee yeneen léeg-léeg mu fàtte hmm. nga ne ah président lu mu wax du ko def parce que ñamuy jox pour ñu liggéeyal ko ñoo dul def mais maanaam problème mu suivi hmm. mooy am maintenant nii ñu gis ne mi ngi koy def dajale le maximum ndax boo dajalee euh, téeméeri nit kenn ku ne am na benn xalaat bu ndaw a ndaw a ndaw bu ñu dajalee yu baax yu ndaw ndaw yooyu mu donc am nañ ci yaakaar donc mu ngi ci étape par étape plaidoyer yi mu def wax dëgg yàlla am na pour annulation dette lu ama am solo la donc même bu ñu annulé wul différé nañu allégé nañu ça c'est déjà quelque chose maintenant euh, man li may wax président rek ma yàgg naa ko président euh, il faut nga def préférence nationale hmm. waaw del jënd dallu day lekk ceebu ceebu mbay lii nga xam ne ne menuisier yi meuble yi ñuy defar maanaam na ko gaañ jënd parce que ay quinze pour cent pour la commande publique ci mobilier national ak ay yooyu lu tuuti la ndax dafa minimum bi cinquante pour cent mooy minimum bi nga xam ne war na ko àgg ndax nit ñi bu ñu liggéey nga far jël ay nit jënd matériel war dem banque leb liggéey ba pare après kenn jënd ko ah mais banque topp la donc yow ñi nga doon jël pour war leen a fay dootu leen mën a fay nga mujj leen dàq donc di coup problème chômage duñ ko mën duñ ko mës a mën a régler mm-hmm. donc bay bi tamit bu nit ñi di bay bu ñu produire war nañ teg circuit yu nga xam ne maanaam yow boo produire rek am na ñu ko war a mën a jënd ñëw jaay ko mu dem ci boutique yi ak yu demee noonu mm-hmm. kon côté boobu moom moo manqué moo manqué si parfois dinañ ko wax nii ci déclaration parce que moom du wax na ko ci euh, décla ci adresse bi il faut pas que le consommateur local doon euh, genre effet de mode ñun depuis suñu congrès 2014 dañu ne il faut favoriser la production et le consommer intérieur mmh. il faut favoriser réew yu développé ndax booy importer yow yaa ngi enrichir yaa ngi euh, fay ñàkku ka dëkk foofu ka ko liggéey ka ko sonn léegi ki fii ñàkk fii boo jëfandikoo li mu li mu produire buñ produire soble kenn du ko jënd nga produire leneen kenn du ko jënd mais kooku dootul liggéey bu yàggee day bàyyi dem seet leneen lu mu def bu yàggee muy sàcc wala di agressé kon euh, na président gën a xolaat taxawaay boobu surtout def ay unité de suivi yu am doole yi nga xam ne comme ñu ngi ci ay programme bu nga xam ne chaque année budget euh, performance ak yooyu mm-hmm. donc na gaa am ay échéance ok plan de travail annuel baa ngi nii séquence bi d'ici deux mois lii la war a doon d'ici trois mois li la war a doon quatre mois lii la war a doon mm-hmm. mais nga wax ko c'est une chose mais ñu topp ci ndax fii moom buñ la defalee document rek nga ni gongo mhm. mais est-ce que du point de vue jëf mu nga ci donc jëf yi mooy manqué ñun foofu rek lañ koy ñaax donc yi ñu jot a déggagum waaw wax dëgg yàlla am nañ ci yaakaar donc euh, mais buñ ko gungee ak un suivi topp ci xam nga tey ji inondation bi ñuy wax ak liñ ci wax nii. Mhm. plan ba bañ ko concevoir sept cent xam nga soixante sept euh, milliards mhm. mais premier trois phases la première phase réalisé nañ ko moo indiwaat jàmm ji am ci inondation yi mais ba ñu paree gars ñi dañu defar yeneen priorité deuxième phase bi topp ñu ko mais bu ñu ko toppoon kon yii yëpp rek la na donc loolu rek mooy li nga xam moom la ñuy wax buñ nañu bàyyi xewal bi waa xewal dañuy xëy wax benn affaire ñu topp ci ñetti fan après ñu fàtte ko jubluwaat ci leneen xewal bi buñ ko bàyyee teg un ba pare la nga teg nag nga topp ci. di ci topp di ci topp di ci topp ba pare ngay évaluer ministère de la santé tegoon nañu jàppoon ne baax na bañ ba ci biir réévaluer nañu après réajusté nañu ba tey jii nii ils ont trouvé la ndax bu ñu ba ni Sénégal mooy numéro deux mondial. Hmm. ba pare di premier en Afrique dans la riposte. Euh, loolu doon doon am na ay moment dañu doon joxoñ hmm. dañu doon joxoñ ndax bu ñu demee ba ne Sénégalais yi dootuñu duggati. Euh, euh, Union européenne donc c' était c' était trop grave. Hmm. mais tey wax dëgg yàlla alhamdulilah et bravo ñu ngi leen di alors ñu ñëwaat ci démb choléra bi amoon atum 2005 amoon na impact maanaam conséquence njeexital euh, ci koom-koom bi ak euh, dundin yeeg lu ci aju. waaw def na ne daal li am ni moom. Hmm. Euh, xaajul woon xaajul woon am donc boobu épidémie la woon. bi pandémie la. donc waaw waaw xam nga bi pandémie la. Hmm. donc te épidémie xam nga maanaam laalu woon sax région yëpp. Hmm. waaw donc xam nga bu laalee ñaar xam nga benn nit bu amee. Euh, maladi comme bu ni Covid. Mhm. wala kii dañ naan épidémie am na. nga dafa gaaw wàllaate mhm. donc benn cas rek da nga war a déclarer ñun euh, xam nga ba mu amee benn cas rek gaañ naa noonu nañ ko nëbb ak yooyu ñu ministre norme bi lan la ñu ko lii la automatiquement mun mën nañ convoqué ci deux jours trois jours ñu convoqué imam bi convoqué ñëpp ñu déclarer épidémie. choléra yaa ngi mhm. bi noonu lañ def dañ ko teel a précoce précoce. ndax xam nga feebar bu mu mën a doon lu mën a doon. Mhm. boo ca teelee taxaw rek danga ci mën a am saafara. Mhm. wala boobu boo metti door dina dina dina dina oyof. Mhm. est que vous donc yooyu nag euh, lii am nii comme pandémie la. chaîne internationale bi moo yàqu. xam nga ñu demoon na ñu soxla fi ay masques jëm Chine Chine faale ñu nga jëm France kooku kooku dara sama bopp laa tal ba pare. kon loolu war na la ne tey ji boo gisee ñuy defar masque xam nga lii mhm. daan ñu ko defar te pourtant mën nañ ko mhm. tey ji xoolal ku nekk mën na ko mais pourquoi mosuñu cee euh, mosuñu koo jox importance mhm. est-ce que tu vois donc am na jeunes yi bu nga xam ne jeunes yi dafay nelaw xoolal tey ji nii ci kii bi gis nañu jeunes ay jeunes yu inventé ay euh, machine robot yuy euh, kii yooyu mais ñooñu ñuy produire ak ñuy inventé da nga leen war a encouragé dafa war am fond buy encouragé invention yi boo ko encouragé soutenir ko après jënd ko pour euh, subventionner ko ba pare accompagner leen. Mm. pour ñu am ay débouché. Mm-hmm. mais kii inventé xalaat ay xalaat xam nga xalaat c'est pas pour rien euh, tubaab di gis ku toog ci bureau mu jox ko climatisation jox oto di ko fay lu bëri que la nekk ci naaj bi di gasa di gaañu mu koy fay lu tuuti. Mm. ndax lépp ci bopp la xalaat la. waaw kon nag euh, loolu dafa dafa dafa am solo daal. Mhm. dafa am solo. d'accord alors euh, Déthié xëy na foofu la ñuy jeexalee euh, yow dund nga mbas mi ci mun naa ne situation yëpp ndax coronavirus dal na la nga dund ko ci sa yaram dund ko ak sa njaboot nga delluwaat nekkaat ci terrain bi di sensibiliser. tey mhm. ci sa xalaat bu mbas mi jeexee wàññeeku na ñuy yaakaar ne nii lay continuer bu jeexee ban jàngat la ci sénégalais yi war a def ak ban comportement nga yaakaar ne dinañ ko ci génnaale. maanaam comportement bi daal mooy bi waroon am toujours waru fee jóg mooy dañoo war a set sax ci dañoo war a set sax xam nga tey maanaam ñun dañuy benn affaire day am ñu taxaw ci yaa ngi fàttaliku ba président ne cleaning day. waaw xam nga boobu cleaning day. Mhm. yow bis bu ne ñëpp cleaning day rek lañuy wax. Ah, man dama ci bindoon. mais cleaning day every day. Hmm. ma ne installons le réflexe de la poubelle. Hmm. parce que nit ñi tant que tàmmuñu maanaam bu ma lekkee wala bu ma kiiwee naa ko voilà naa ko def ci poubelle du sotti ndax poubelle turu préfet la woon bu nekkoon Paris. ñu hmm. turam des ci li nga xam ne créé na ko mu indi lii ndax loolu amoon foofu yéeme woon na. donc te jii wax dëgg yàlla ci biir mbir mi. lañ naan yàlla nañ ci yàlla génne te gëm nañ ne ci barke màggal gi. buñ ci génn yaakaar naa ne daal. zéro zéro cas yi moo fi ne ba après fay na fii fay na fii fay na fële mm. ba dernier foyer bi nga xam ne ne dina fa dina fa fa fay mm. mais ci biir loolu lañuy ñuy gën a xam ne tey jii la ñu war a gën taxaw tey jii la ñu war a gën a dëgëral suñu taxawaay ndax buñ nee jeex na rek kon nañ delluwaat ci la ñu nekkoon du sotti mm-hmm. loolu mooy toujours li ma la état d'esprit bi ah. mooy changement paradigme bi mm-hmm. am na fi waratu fi am la war a doon mm-hmm. waratu fi am nag comportement bu sax la comportement boo xam ne kenn ku ne yaay doon sa gardien morom mm-hmm. ndax policier wala gendarme boo ko séenee jël sa masque teg sa bakkan boo ko rombee euh, daal di bindi sànni naxantewoo naxantewoo sa bopp ngay nax mm-hmm. kon ku ne na xam ne lu baax lu bon li ngay def wala li ngay tricher sa bopp nga ko def ba mm-hmm. pare a door a door a participer ci liy yàq kër liy yàq quartier wala commune wala wala wala réew kon na ku ne xam ne ne loo def lu bon lu fi jóg waaye nag mën nañoo xeex ba mu làqu xam nga tey réew yi bu ñu naan ay pourcentage ñun mosu ñoo xam pourcentage. mais mhm. pourcentage ci réew tubaab yooyu la jógee. Ah. mais tey jii daanaka moo yàq moo <laughs> moo yàq mooy affaire corruption. Mhm. ñoom ñoo xamoon loolu. Ah. corruption pourcentage voilà mais ñoom tubaab yi ñoo ko xam. Mhm. ay cinq pour cent dix pour cent ñun mosu ñoo xam loolu. yaa ngi mais parce que foofu la jógee ba ñun na ñu roy dàq. yaa ñu roy dàq. donc loolu daal mooy li may am na lu ñu moomul nañ ko baax ña ko moom. ngor ak jom. waa donc euh, la ak fayda moo tax ñu dégg Sénégal yóbbu daw ñu di ko dégg ci àdduna yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp donc loolu it buñ ca bàyyee xel am ay jomb-jomb waaw di am lu ñuy jomb di am lu ñuy euh, ragal a def ah, yaakaar naa ne kenn ku ne bu amee lu mu jomb am lu mu kii rek ñun ñëpp dinañ ci dinañ ci génn mhm. li ñu bëggal sunu njaboot ndax ñu am na lu ñu rëcc ba pare mhm. mais sunu doom yi ñu am lañu ñu war a waajal la ñu war a préparer ba wax dëgg yàlla ba ñuy màgg dinañu fekk lu lu baax lu leen fi lu leen fi lu leen fi bàyyil mhm. man de yi may def yëpp parfois gandi maa yow doo jóg ci li ma leen noonu li may def tant que daw ma ba nga xam ne ne contaminé na le maximum de monde ba mu wóor ma ne ñi taxaw taxawaay citoyen mhm. bu baax tousan productif moo ëpp du ma bàyyi waaw ndax lii bu ma nekkee ci terrain bi damay taxaw ci terrain bi mhm. président bàyyil ma leen noonu président tant on sur le terrain on doit servir te ñun li ñuy ñaan mooy bokk ci les plus grands serviteurs du donc loolu nag li mu laaj mooy di joxe exemple di ko jëfee joxe exemple ay jëf la du ay wax de. Hmm. ndax took rek di wax fii baax neex na mais nit parfois wax lu nga xam ne xoolal ci ay atam mais nga xool fukki at ñaar fukki at ci ginnaaw est-ce que li muy wax nii dëppoo na ak jëf yu daan jëf. Hmm. mais bu fekkee ne yow mosoo jëf yuñ daan yore yooyu nga dem ba sa benn mbokk wala circonstance lancé la wala sa benn ñu fal la miis wala loolu rek nga commencé bëgg a baax liñ la jox moo tax ngay baax. Hmm. kon boo ko doo baax. kon loolu na ko kilifay ko mel ni motivation boobu fan la fan la ah, jógee man engagement bi xam nga depuis 1984 kon tey jii maa ngi ci 36 ans mhm. lañ ma njëkk a fal président coopérative pour école primaire bi ñuy wax euh, urbaine 1 euh, fi ma dëkkoon tamit muy quartier Ngent dafa amoon lu ñuy genre intolérance religieuse ndax dafa am ñu naan ngent olof ngent portugais donc dafa am ay xeex yu daan am ci wute diine beeg ay yooyu ñun xale yi comme dañoo soboon dëgëroon fit dañuy dem xeex ak benn ñoo ñu ñëw fayu après voilà ñun foofu la ñu amee culture tolérance bon daan gis ay injustice injustice yooyu ndax yow ñu dañuy dëkk ni ñu ñu wër ñett kër yi ñu wër yëpp ay chrétien la ñu ñu war a dëkk ak ñoom ci jàmm donc loolu moo ñu may ñu am benn culture bi am benn tolérance bi am ñu aussi benn capacité de dépassement bi hmm. maintenant nag ba ñu songee di xeex parce que boobu cent franc lañ daan cotiser mais dañ daan bëre lu ñu manqué léegi nag euh, inspecteur bi nga xam ne mooy surveiller ba mu ñëwee ñu wax wàllu kii bi ñun ñu wax li ñuy cotiser loolu nu bare te gisuñu ci benn résultat après man ci lañ ma bàyyee xel ñëpp encouragé ma ci laa tàmbalee euh, jiite donc bañ nekkee aussi ak suñuy xarit mes amis d'enfance donc ñoom toujours dañ ma daan jiital aussi ñu dem école Jules Sagna dawal tuuti ñu jiital ñu fa ñaari at ñu dem lycée Malick suñ ñu def noonu grève tax ñu dàq ñu dem Mbour ñu jiital ñu ñu dem université ñu ñu ñeenti at yoo xam ne mosuñu koo jiital kenn kenn kenn hmm. ci mouvement étudiant Sénégal yëpp loolu nag euh, xaalis defu ko mais jom la di di di di di di jë di di di maanaam di def loo gëm xam nga li li nga gëm boo ko defee foo tëddee nelaw kenn du la bett hmm. waaw man foo ma fekk rek jekk naa bu ma gémmantoo fu ma tëdd boo ma lalee basañ tëdd na ñu xam ñëpp dañ na naan ak gaaw a nelaw ndax man lu ma du ma def lu nga xam ne daf may tere nelaw hmm. non non non waaw il faut être engagé de manière sincère voilà te loo gëm rek du la sonal loo gëmul nag moom boo ko jéemee léegi di ko def par contrainte boo gisul ki lay contrainte yaa ngi def leneen loolu la ma sama papa doon wax yàlla na yàlla yeesal yërmande ci moom lii ma leen di def ba mu bëgg bu ngeen wéetee di ngeen xam njëriñ dama daan doon ndax dafa tàngoon mënoon a dóor hmm. man mii lay wax yow ni plombier la cinquième catégorie B hmm. ba ma amee bac laay door bàyyi liggéey euh, plomberie mais ouvrage mën naa ci lu bare bare bare d' accord jërëjëf euh, Dethie Diouf ñu ngi lay gërëm bu baax amoon mbégte dalal ci euh, waxtaan wi démb ak tey waxtaanee 2005 euh, jamonoy choléra ga ak màggal gi doon xool itam matukaay yi ngeen ca jëloon waxtaanee itam tey fenu nu toll ak mbasu Covid 19 ak matukaay yi ci kilifa yi jël surtout taxawaay gi ci kilifa diine gi am muy Serigne Mountakha mi jiite yoon wi tey ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér mbégte mi di la gërëm bu baax encore une fois gërëm auditeurs yi. bàyyi la rek nga tàggoo xëy na ci lu gàtt. jërëjëf euh, Adja Fatou suma yaay ndax suma yaay Fatou la tudd vraiment dañuy am plaisir waxtaan ak yow ndax euh, vraiment dañuy gis ni ngay conduire débat waaw yow da ngay may euh, vraiment sa invité mu mën a développer génnee li ci moom. Hmm. donc loolu nag c'est pas évident souvent da ngay kenn koo xam du mais leneen di rek mooy di encourager. citoyens ak ñi nga xam ne ñëpp daa notre parcours ñu ngi ñuy wóolu ñu ñuy encouragé di ñu ñaax pour ñu gën a taxawaay ndax esprit de sacrifice la donc euh, loolu na kenn ku ne bu jàppee ne liy yàqu du jaar ci man rek vraiment dara du yàqu waaw wala boog li yàqu du doon lu nga xam ne mën na ëpp li liy defaru mhm. donc encore une fois ñu ngi leen di félicité mooy li ma leen doon wax vraiment réew mi moom sunu réew la. Mhm. donc moo li ngeen duppee rajo bi kon concept bu am solo. doxalin bi tamit bu ñu fa ñëwee ay jeunes rek. ñu mhm. ñuy gis ngeen promouvoir leen ñu fay liggéey. Mhm. donc loolu gën naa dëgëral sunu yaakaar. di leen ñaanal euh, vraiment yàlla gën a dëgër taxawaay ba mu doon vraiment. voilà organe bu incontournable. Mhm. sur l'échiquier médiatique sénégalais. jërëjëf jërëjëf euh, Déthié Diouf président parti Visam citoyen Déthié Diouf comme ni muy euh, woowee boppam ñu amoon mbégte mu rëy dalal la di gërëm Diaw Diallo mi nekkoon ci machine bi Fatou Thiam Ngom la woon ci kàddu gi dig daje beneen dimanche incha allah ñu waxtaane leneen ak keneen di leen ñaanal màggalub jàmm euh, surtout yow Déthié ñu lay ñaanal. màggal gi doon xéewal ci ñëpp surtout yow ak aussi mbégte gërëm ci disponibilité bi. yendoog jàmm